lan moo tax jeunes yi am problème am liggéey moo di ñëpp dañuy wuti yenn filières yi alors que yeneen filières yi désert le total yéen est-ce que ci seeni formation ak ndaw ñi ngeen bëgg di jàppale yéen a xool filières yi nga xamante ni moom moo rafle wala mooy porteur ngeen ci xiifsal ndaw ñi maanaam ay agriculture ak yooyu. waaw agriculture. waaw ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ciy xool bu baax a baax ndax soo xoolee Sénégal. sociologiquement dañu am benn benn benn jafe-jafe mooy nit ku fi tàmbali dara su tàmbalee dox da ngay gis ni téeméeri nit dañuy ñëw way di def loolu. da ngay jaay fondé ci biir kër gi. <laughs> loolu mooy problème bi de ndogo yi ñaari kër dox seen diggante mooy mu xëy suba teg boolu fondé. waaw donc waaw gis nga loolu mooy hmm? problème. loolu mooy problème mooy li si. kaca doog booy jaay fataay <laughs> sa dëkkandoo bi day jaay fataay. moo moo rey ay télécentre ki li ma koy wax sax. est-ce que mu xalaat du xalaat sax ni xaaral ma jaay mburu ndax ku jënd fataay fee boole ko mburu mi non non danaan fataay laay jaay ndax kii. mu ngi jaay fataay te gis naa ko temps yi vaccin mi so rafet na mm-hmm. donc ma ngay doxale mhm. loolu daanaka loolu nag li muy indi dafay indi euh, lu ñu lu ñuy wax euh, dañuy chevauché daal. Eh mhm. chevauché dañuy loolu nag soo gisee ndaw yu bari comme li sëñ Albert doon wax day tax su ñu amee entreprise su demee euh, deux deux ans mu daal di tëj. Mhm. ndax peut-être yaa ngi amoon modèle bu dox parce que li ñuy wax business plan mais modèle modèle modèle modèle économique bu boo xam ni moom moom moom la marché bi soxla. su fekkee am nga ko jéem ko développer le plus souvent su fekkee na dangay ni ñi nga xam ni bon. amuñu xalaat bu àgg foofu dañuy ñëw copier di faire la même chose ce qui li muy indi ma fekkoon am na prix yoo xam ne compétitif na dañ koy kase mm-hmm. léegi à la longue ñëpp ñëpp ñooy perte mm-hmm. donc ñun li ñuy njëkk a fexe euh, moom mooy ñi nga xam ni comme ni mu doon wax ci secteur d' activité ndax secteur d' yi ñun yi nekk parce que am nañ lu mu deedee plus de cent cent adhérents ñoo xam ne ñëpp ay ay entrepreneur leen mm-hmm. te moyenne d'âge bi eggul vingt quatre ans ay jeunes lañ en fait. Mm-hmm. am bu ci nekk de amul lool amul 24 ans. waaw ay moyenne d'âge bi suñ ko xoolee ñu ci nekk ñëpp eggul 24 ans. Mm-hmm. donc loolu ce qui veut dire lu am solo la ce qui veut dire kon ñi ciy njëkk a jàngee mooy Sénégal euh, jeunes yi ñu ngi jéem. Mm-hmm. ñi ngi jéem ñi ngi jéem a def dara en fait. et maanaam le le climat nag climat climat économique bi des fois ni mu ko waxee accompagnement bi moom mooy des. léegi nag ñun fi ñuy ñëwee mooy maanaam xalaatal leen ci ki nga xam ne jiitu nga ko ci yoon mhm. di nga xam fu pakk am mhm. nga ne ko ah sëñ bi lii kat pakk la te mhm. nga koo jéem a moytu ndax soo ko moytoo dina la jural lii waaye soo ci duggee mën ngaa pëtëx fii li mu doon wax léegi ci financement yi par exemple financement dafa di loo xam ni dafa xaw a diis financement fekkee da ko jël ci banque yi ak taux bi ñu la koy joxe su fekkee da ngay soog commencé nga am business boo xam ne maîtriser koo ko. Mm. maîtriser koo ko le plus souvent da ngay gis ni ñi nga xam dañoo dem rek jël jël prêt wala ñu ñëw leen xaalis amuñu expérience bu bu avéré mm-hmm. le plus souvent le projet ne marche pas. Mm-hmm. nekkul volonté bañ a fay mais mbir mi moo dul doxati parce que du ñu xam premièrement du ñu am intelligence financière. pouvoir bien gérer mm-hmm. xaalis boobu noonu xam ni bokkul ak seen kafaga. sëñ Tuubaa daf ñuy daf sëñ Blaat dafa wax ni nee na liggéey liggéey ni mbaam. yàq ni xaj te wax yàq ni golo te ni xaj mm-hmm. waaw ah. liggéey liggéey ni mbaam denc ni xorondoom jariñu rek mm. kon li ñu ciy njëkk a jàng mooy faw nit ki soo nekkee jeune nga nga nga nga am yitte ju kawe mm-hmm. waaye li ngay am tam li ci am ëpp solo ngay nga bañ a yàq mm-hmm. soo bañee yàq ba noppi nga bañ a yàqamti donc loolu dafa doon ay ay ay ay ay ay ay ay doxalin yoo xam ni Sëñ Tuubaa daf ñu koo jàngal mm. moo tax secteur d'activité yi am na agro ñoo xam ci ago alimentaire lañu nekk ñoo xam ci agriculture lañ nekk ñoo xam ni ci habillement ak mode nga xam ni loolu comme ni ñu doon wax label Touba dafay jaay bu baax <laughs> xam ni loolu moom fi ñu toll vraiment secteur la boo xam ne c'est en plein boom c'est en plein boom ñu bari mm. ñu nekk ci kuréel gi ñu ngi yëngutu ñii ay maxtu la ñuy jaay mm-hmm. te loolu yëpp ça renvoie à l'identité l'identité culturelle mm-hmm. ñii ay ay mbubb la ñuy jaay mm-hmm. ay accessoires yoo xam ni dafay dafay renvoyer ci ci yoonu murit wala ci mbirum Sëñ Tuubaa la ñuy wecci ay jeunes mais dañuy fexe di leen expliquer que ñoom ñëpp ñoom ñu bokk secteur d'activité yi nekk par exemple habillement ñoom suñu xamantee rek ku ci ne di xam sa moroom li muy def xam xamante bi loolu rek li muy njëkk a jur mooy dina tax mu am diversité en fait bien sûr diversité boobu nag dina tax dina leen mën a tax seen entreprise waaw ñu yëgoo waaw du mm-hmm. du am solo la mm-hmm. du ñu wujje nga xam di nga xam ne man damay defar mbubb kii itam dafay defar mbubb mais kii maanaam xeetu mbubb bii lay gën a defar mm-hmm. yow tam nga jéem a créer leneen loo xam ni dina gën a dina dina gën a intéressé beneen cible boo xam ne dina dina leen intéressé nga xam yéen ñëpp di ngeen mën a dem du tere yow tam yéen a bokk le plus souvent ay cible waaye seen cible dañ mën a ñëw ñëwee ci sëñ bi ni ko man da mbir mi laa soxla woon mun na ah loolu du ma ko jaay waaye diw moo koy jaay jabal la ca moom waaw loolu moom loolu moom mooy moom mooy moom mooy yitte gi léegi nag am na secteur yoo xam ne xaw na rafle ndax fii sociologiquement ñun tubaab bi daanaka mal bi ñu def ba tey dafa dafa ancré ci ci ñun ndax pour ñoom pour ñu peut-être suñu waajur sax dañuy jàpp ni nit ki pour mu réussir foog mu toog derrière un bureau. Mm-hmm. devant un ordinateur. xam nga. bu mm-hmm. toog moom mm-hmm. réussir na. <laughs> lool loolu lañ ko jàppee. te soo xoolee les capitaines d'industrie au Sénégal le plus souvent. dañuy jóge ci secteur informel. bien sûr ñëw fekk fekk benn loo xam ni dafa benn vide bu am ñu occuper ko. ba noppi mën a gérer gérer une chaîne de valeur boo xam ni yëpp dañ koy mën a occuper. Mhm. mën ko gérer te loolu suñu mbokk bool bool yi xarañ nañ ci <laughs> loolu. mooy li doyen doon wax <laughs> léegi. loolu nag day tax soo xoolee secteur secteur secteur d' activité yu bari. Mhm. ñoom dañ fay nekk maanaam di ko di ko téye. Mhm. dañuy téye secteur d' activité bi. parce que chaîne de valeur secteur d'activité bi yëpp dañ ciy nekk wala ñu wala seen nit nekk ci wala ko ñu xam nekk ci nga xam ni business bi dafay dafay des ci ñoom kon nag mm. loolu la ñuy fexe nit ñi itam di ubbeeku ci yeneen lu mel ni transformation des produits locaux am na ñu ciy yëngu mm-hmm. mais dañuy fexe di leen former di leen former ak suñuy partenaire ndax ñu mën a exporter seeni produits wala ñu mën a xam emballage bi naka lañ ko war a mën a mën a defee ba mën a song euh, grande surface mm-hmm. jox seen produit ñu koy commercialiser naka lañ mën a def ci ci ci ci conditionnement bi ba mu mën a dem ci biti bu noppi compétitif foofu mm-hmm. xam ni yooyu noonu dafa doon ay ay secteurs yoo xam ne porteur la day indi devise Sénégal di contribuer ci économie économie sénégalaise ba noppi mm-hmm. dañ leen mën a permettre ñu dem atteindre yeneen yeneen marché